wasalaatu wasalaamu ala ashrafi xalqihi sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa asxaabihi altayibin altahirin algurri almayamin wa radi allahu an cheikhina altijani wa an jamici xulafaihi wa ahli tariqatihi mbokki jullit yi mbokki déglukat yi gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayiduna muhammad julli ci ay ñoñam ak i saxaaba dellu si neen ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul xaq seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di leen ko defal ànd ak seen xarit Ahmed Samb euh, tabaarakallaahu tey ñu fas yéene waxtaan ak yéen ci histoire Sayyidna Ibrahim alayhi salaam comme ni ñu leen ko jige woon yadkuru almuarrixuuna an sababi Ibrahima an nasabi Ibrahima alayhi salaam silsilatan tattasilu xalaqaatuha ila nuuxin alayhi salaam fa huwa ibrahimu bnu aadara ibnu taarix ibnu aadara aw ibnu taarix ibnu saruux bnu racuub bnu faalix ibnu caabiru bnu shaalix ibnu aar fakashaad ibnu saam ibnu nuux alayhi salaam wa bi hada yakunu nuux huwa aljaddu taasi li ibrahim ñu ne ñiy bind ci histoire bind nañu ne suñu maam ibrahim topp nañu ay baayam ak i maamam ba ca sayiduna nuux alayhi salaam ñu ne Ibrahima Azara moo ko jur tur woowu moo ñëw ci alquran waaye soo demee ci tawreet am na beneen tur bu ñëw ñoom nee neen Ibrahima taarix moo ko jur wante comme ñun ay jullit lañu duñu ay yahut li ñu mën a gëm moo di ne Ibrahima baayam mu ngi tuddoon aazara ndax soo demee ci alquraan borom bi mu ngi wax ni wa id qaala ibrahimu li abihi aazara atattaxidu asnaaman alihatan inni araaka wa qawmaka fi dalalin mubin kon aaya boobu daf ñuy wan baayu ibrahima aazara la tuddoon waaye soo demee ñoom dañ ne bàyyam mu ngi tuddoon taarix soo toppee askanam dana dem ba jeexe ci yonent yàlla nuux alayhi mu di juróom ñeenteelu maamam mu mel ni kon suñu maam Ibrahim moom lañu tuddee abul anbiya maanaam moom mooy bàyyu yonent yi yonent yëpp ibrahima mooy seen baay ndax ñaari càllale yi moo tax ndax ismail moo féete woon ardu xijaaz ndax fa la yaayam doon sëy loolu daneen ko jàng ci biir histoire bi ci ismail ci la famille Quraysh feeñ ci famille boobu la sayidna muhammad jóge di gën ji yonent beneen càllale gi ñu nga féete woon ca ardu kanaan ca baytul maqdis foofu saarata moo fa doon sëy doon aawa suñu maam ibrahim jur doom ju ñuy wax isxaq ci càllale googu la yonent banu israil yëpp ci la jóge ba ci tabaarakallahu yaaquba mi nga xam ne moom lañu wax ne moo di israil ba tax ñu naan banu israil di ko askanale yahud yi te ñu ne yahuda doomam boobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud jóge kon mu mel ni càllale googu di sëtu isxaaqa yi ñoo dem ba ca isa bnu maryam kon wàll googu yépp nag boo toppee seen askan dafay dellu siwaat ci maam ibrahim kon nag dana am daraja ci ñu wooyee ko bàyyi yonent yi kon mu mel ni soo ci génnee saalix génne ci huud génne ci nuux génne ci idris dangay gis ne ñi ci des ñëpp daanaka ñu ngi génnee ci banu israil ci kàccàllaleek suñu maam ibrahim alayhi salaam loolu tax ñu tuddee ko abul anbiya soo gisee nag ñu tuddee yonent yàlla nuux abul bashar dafa fekk ni dafa mel ni àdduna bi ci jamono yonent yàlla nuux dafa tukki woon ba beneen dund bu bees am ndax lekko dale ci suñu maam Adam alayhi salaam e, nit ñi ci jotoon a am ba ci jamono yonent yàlla nuux mu woote junni atam yooyu mag manqué juróom fukk keroog ba mu jëppee aw nitam ba ñaan ba yàlla wàcce alkandeem ndox mu bari ma ba nit ñépp faatu am nañu wax ni yonent yàlla noox ñi ko gëmoon matuñu sax téeméeri nit ñooñu ba yàlla raxasee suuf si ñépp faatu ba mu des lim bu ndaw boobu ci kaw suuf ñooña ñépp yonent yàlla noox dafa taxawoon taxawaayu bàyyi ci ñoom ni aadama taxawee woon taxawaayu bàyyi ca njëkk loolu tax ñu tuddee ko abul bashar athani kon bu fekkee aadama mooy bàyyu mbindeef yu njëkk yi nuux moo di bàyyu mbindeef yu ñaareel yi waaye nag ibrahima moom itam am na darajay nekk bàyyu yonent yi loolu tax ñu tuddee ko abul anbiya mu mel ni nachaa ibrahimu bil iraq fi bii'atin wathaniyatin tuqaddisu al-asnaam wa ta'buduha wa kaana abuuhu aadara najjaaran yasnacu al-asnaam wa yuctiiha fi bacdi al-axyaan li waladihi ibrahim kay yabiicaha linnaas fa kaana ibrahimu yaxmiluha wa yasiiru fi al-aswaaq wa yaquul man yashtari maa yadurruhu wala yanfacuhu falaa yashtariha minhu axad summa yantaliqu bacda dalika ila almaa wa yaxmisu ra'saha fiihi wa yaquul ishrabi wa hada imcaanun fi suxriyati wal istihdaa ñu ne suñ maam Ibrahim mu ngi juddoo ci dëkk bu ñuy wax Iraq muy Irak ci milieu boo xam ne xërëm moo fa siiw di yàlla bu ñuy jaamu ñu daan sellalal xërëm yooyu daan ko jaamu jàppe woon ko seeni yàlla mu di ay doj yu ñu yett ak dénk yu ñu yett baayam nag mu ngi tuddoon aasara ñu ne menuisier woon boo xam ne la doon métier mooy yet ay xërëm di ko jaam yett ay xërëm yitam di ko jaay ñu ne bind nañu ne baayam bi daan na jël xërëm yi di ko jox Ibrahima alayhi salaam pour muy dem ci marché yi di ko jaay su ko defee nag Ibrahim ci worma bi dox ci diggante wéyjur ak doom taxoon na li muy bañ bañ xërëm mu jëloon xërëm yooyu doon ko jaay waaye suñu maam Ibrahim maandu gi nekk ci moom taxoon na itam muy wax dëgg ci marchandise am ndax dañ ne boo dee jaaykat sa marchandise bu ci lor nekkee wala sikk nekk ci nanga ko wax chemise bi ma lay jaaykat dafa fënax boo ko solee ñaari fan lay am mu xotteeku waaye chemise bi baax na lool maa ngi ko jënde barab sàngam te nga xam sikk bi ci nekk boo ko jaayee def nga bàkkaar kon waxal sikk bi pomme de bi ngay jaay bu fekkente ni dafa am yu nëb yu ci nekk bu kon làq ci biir saaku bi tabarkalla ki nga koy jaay wax ko ne ko marchandise bi am na ayib noonu la ko lislaam bëgg mu mel ni suñu maam Ibrahim moom itam ayib bi nga xamante ni nekk na ci marchandise baayam bi moom de mu ngi koy annoncé di ko wax jëndkat yi lu doon wax mu ngi doon wax ne man yashtari ma yadurruhu wala yanfa anakan mooy jënd lu koy lor te du ko jëriñ waaw na ba xërëm yi rek naan kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ wax na dëgg ndax li yàlla gën a bañ ci kaw suuf moo di ku ko bokkaaleel kon ku jënd xërëm bi pour fas yéene koo jàmm yaa ngi lor ci sa diggante ak sa borom waaw ndax jaamu ga njariñam ca jaamu ga njariñ nekku ca kon li suñ maam Ibrahim wax dëgg la moo taxoon nit ñi doon ko romb du ñu nangoo jënd xërëm yi ndax foog neen ni xërëm yooyu xërëm yi ay leen buñ ko jëndee buñ ko dogalee seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg looloo taxoon ñoom itam ñuy daw xërëm yooyu bañ koo jënd am nag ñu jógee am nag ñu ñëw ci baayam boole kook moom ne ko sa doom jëkkat xërëm yi nga koy jaay day wax ne kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ waaye am na beneen kéemtaan bu ci feeñ ndax Ibrahim alayhi salaam daan na tee xërëm bi bu ñëwee ba ci mbalkam ndox mu juutal ci xërëm bi ne ko naanal waaw naan ko ishra bi naanal waaye loolu daf doon wan nit ñi ni e, ñoom ci seen bopp ñoom nit ñi dañoo dof ndax koo xam ne du lekk du naan du xool du yëngatu boo waxee moom du ko dégg nga tiim ko di magum jëmm ak sa sikkim sukk ci wetam di jooy di ko wax sa soxla loolu fala ak ndof yam loolu tax ñu bari di wax ne ñi nekk ci mbedd mi di taxawaalu dañoo feebar waaye dof yi ñu ngi ci biir nit ñi waaw mooy boroom xel mu ne yëng yore soxnaam te itam nga koy gis ci lu doye di nit yàlla daf ko jox xel pour muy xalaat moo tax yàlla ne man waxuma ak dof yi waxuma ñi feebar boroom xel yi lay waxal kon faatabiru yaa ulil albaab loolu lépp nee na xeet la rekk ci xeetu yëjj bu Ibrahima doon def aw xeetam wan leen ne dañu dof ci wàllu xalaat ak gisin moo tax ñu ne e, saxla bi tudd na ci téeréem bu ñuy wax araisul majalis ne bi nga xamante yàlla dogal na suñu maam Ibrahima war a juddu ci waxtu woowu am na ay jibarkat yu xam biddiw am xam-xamu biddiw ñëwoon ci buur bu ñuy wax Namruus ndax jamonoy yonent yàlla Ibrahim dafa tombeek buur bu ñuy wax Namruus Namruus mi nag mooy modelu Firawna ndax kàccoor bu ne am na ko roy Namruus moom la na doon roy Namruus ibnu Kanaan mi moo doon buuru baabil di babilon gisaanekat yi ñëw nañu wax ak moom ni ko ñun kat suñu xam-xamu biddiw daf ñu jox ne am na xale bu war a juddu ñu ngi koy wax Ibrahim du bokk ak yéen diine te dana dàmmate seeni xërëm ci jamono yi nag la war a judd looloo taxoon nag buur bi daldi wax ne jigéen ju ëmb nen ko ko indil ñu indi jigéen ñi ëmb ñi yëpp mu dajale leen ci benn place tëj leen fa waaw lu tax la mu ca namm moo di ne ku am doom muy góor rekk mu rey ko wante nag jamono bi soldaar si di dajale jigéen ñooñu boolewuñu ca yaayu sayiduna sayiduna Ibrahim lu tax ndax boobu dafa nekkoon xiik maanaam dafa nekkoon jànq boo xam ne dafa ëmb waaye ëmb ba taxul woon mu feeñ ndax dafa doon ëmb bu ndaw loola tax ba ñuy dajale jigéen ña moom kenn jëlu ko yàlla dogal jigéen ñooñu lañu jur yépp muy góor rey nanu leen yaayu Ibrahim nag moom mu ngi këram bàyyi nañ ko fa ci kaw dogalu yàlla ak namm-namam ba nga xamante ni yàlla dogal na mat dikkal ko ci la génn nag ci waxtu guddi dugg ci benn grotte mu di benn xunt boo xamante ni soriwul këram foofu la nëbbu foofu nag la ko yàlla wërsëgalee doom bu baax boobu di Ibrahim nee mu bàyyi ci xunt moomu di ko nemmeeku di fa dem tabaarakallaahu di toppatoo ay mbiram ba yàlla def Ibrahima màgg wax ne ne nag màgg na màgg gu gaaw wa bi mururi zaman wa bi mururi zaman nasiya almaliku ma qaalahu almunajjimuun wa sakata an il amr fa xaraja ibrahimu min almagarati wa xtalata binnaas wa lam yantabih ilayhi ahad ñu ne toog nañu diiru jamono yàlla dogal buur ba fàtte na la nga xamante ni boroom xam-xam yooyu di ay gisaane kat waxoon nañ ko ko ci mbiru xale boobu war a juddu te tudd Ibrahim mu mel ni yàlla daf ko ko fàtteeloo waxatul ci mbir moomu dara jamono boobu nag fekk na Ibrahima di waxambaane ci la génn nag ca xuntam moomu daal di jaxasoog nit ñi te kenn attiré wu ci sa attention mu mel ni Ibrahim ku ne xam na ni màgg na yàlla bañ loo ko xërëm bañeel goo xamante ni bañeel gu jéggi dayoo la moom yonent yàlla Ibrahim mu mel nii suñu maam Ibrahim la mu njëkk a def moo di commencé di fexeel xërëm yi wa kaana min aadati haulaai alqawm an yuqimu ciidan lahum fi kulli aamin yaqduuna ayaamahu xaarij almadina wa kaanu yadacuuna alatcimata alshahiya alkathira fi buyuti alcibaada li li tabarruki bi alihatihim ñu ne bokkoon na ci aada bi nga xamante ni nitu Ibrahima yi amoon nanu ko moo di ne at mu ne daan nanu amal benn feet boo xam ne ñu ngi ko daan defee ca gannaaw dëkk ba ñoom nag daan nañu togg ñam yu neex tabaarakallaahu ay ñamitu tukulóor yu neex lañ daan togg def ko ci seen barab yi ñuy jaamoo xërëm su ñu demee ca feet ga ba retourné nag daal di koy lekk wante keroog bi nga xamante ni seen feet googu jot na ca la Ibrahima alayhi ne daal dana profiter occasion ci feet googu pour mën a def tabaarakal la pexe mi nga xamante ni laloon na ko yàlla dogal bi baayam di dem ak i mbokkam moom dafa porté malade wax ni inni saqiim man kat dama feebar te booba da doon feebar feebarlu moo tax ñu ne wala ma xalal jawwu min al min al xuraasi wa ruqaba asraa ibrahimu ila beyti ibadatihim fa wajada al asnaama masfuufatan wa qad taraakama altaamu ila jiraariha ila jawaariha wa hiya xarsaau samma laa tuxissu wala tashcur wa xaataba fa xaatabaha mutahakkiman biha mutaxaqiran li sha'niha qaa'ilan alaa ta'kuluun ñu ne suñ maam Ibrahima alayhi salaam ba nga xamante ni nit ñi dem nañu nee na nag terrain bi vide ci kanamam moom dong moo fa nekk ñépp dem nañu bàyyi koog dëkk ba. nee na benn garde nekku fa kenn kuy surveiller mbiru yàlla yi nekku fa nee na foofu nag la Ibrahima gaawtoo daldi dugg ci seen biir jaamukaay yu xërëm yooyu nee mu ngi fekk ñu ngi rangali xërëm yi nee na itam ñu ngi teg xeetu ñam yi ci wetu xërëm yi nee na xërëm yaa ngi lu ndax mënuñoo wax nee na ñu ngi tëx ndax boo waxee ñoom duñu la dégg nee na amuñu ak yëkk ndax boo leen dompee duñ ko yëkk nee na itam amuñu xol ba duñu am lu leen naqari ak lu leen neex kon daanaka jamaadaat moo nekk foofu waaye nag xayawaan nekku fa luy dund daal nekku fa nee na Ibrahima boobu jeune la nee na mu gëdd xërëm yi wax leen waxin wu xeebu tiimale leen lekk yi kenn ku ci nekk mu yëkkati lekk gi tiimale ko sa gëléem ci ci sa gémmiñ ne la ala taakuluun xanaa du ngeen lekk lekk leen xërëm yi ne tabaarkàlla yëng di leen di ko xool mu ne leen a ah, yàlla joo xam ne du lekk boo waxeek moom du ko dégg sama mbokk yi sëgg ci yéen rekk seeni temps seeni tabarkal la alal ak seen coono seen lépp ñu jox leen ko te mënu leen leen a jariñ ci dara foofu nag la Ibrahima gën a yokkoo ci ngëm mel ni yàlla daf ko yokk pas-pas ci gis-gis boo xamante ni am na ko mu di gis-gis bu dëgër foofu la jël benn sémmiñ jël xërëm yi benn par benn di leen ko gor di dagg seen loos ya dagg seen loxo ya daggeen bu ñaaw yàq xërëm yépp ba mu des benn xërëm bu mag nee na mu daldi jël nag sémmiñ wa daldi ko koy wékk daldi génn dem yoonam bi nga xamante ni mbokkam ya dellusi si neen jóge ca seen feet ga dugg nañu ci seen xërëm ya ñu fekk seen xërëm ya salfaañoo ñoom ñépp daanu ci suuf lu tax ndax ibrahima alayhi salaam moo dog seen dop seen bopp ya yàq seen yaram ya daaneel leen bàyyi fa xërëm bu mag ba wékku ko semiñ wi nee na ñu ñëwee tiit nanu yéemu nanu yuuxu nanu daldi wax ni ma hada kabir waaw musiba bu rëy bii kan moo ko def wa ma hadihi al musiba al azima wa ma hada alladi ada ala alihatina fa awradaha mawarid al halak waaw kan moo def lii suñu yàlla yi ba suñu yàlla yi di ko tàbbal ci tàbbuwaayu alkande ki def lii de innahu la min alzalimin moom de tooñkat la ki def lii de la budda an yaduuqa wabaala amrihi wa aaqibata makri ki def lii daal mënul ñàkk mu mus musibam mbir mu ñaaw wi mu def ak itam mu mujjug pexem mu bon mi mu def nee na foofu nag qaala qaailun minhum am na ku wax ca ñoom ne samicnaa fatan yuqaalu lahu ibrahim yazkuruhum bissuu wa yaxtaqiru cibaadatana lahum wala budda an yakuna huwa alladi taasha caqluhu fajtaraa wa facala hadihi alficla hadihi alficla almunkira am ku wax ca ñoom ne déggoon naa benn waxambaane bu ñuy wax Ibrahim muy wax ci ñoom lu ñaaw kooku daal ku contre suñu yàlla yi la daf ñuy xeeb sax xeeb gu rëy ci jaamu gi ñuy jaamu suñu yàlla yi dama foog ni Ibrahima moomu xelam moo dem ba tax mu am fit ci def jëf ju ñaaw ji suñu yàlla yi moo tax ñu ne mag ña d'accord nañu ci ne nanu jëli Ibrahima indi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mag ñi daal dem indi Ibrahima te amuñu benn preuve ci moom lu dul rekk tuuma la buñ ko sànni donte sax moo ko def ñu indi ko ci kanamu nit ñi pour àtte ko wante waxtaan wu neex dox na diggante Ibrahima ak nit ñooñu dàggasante boo xamante ni wax dëgg yàlla Ibrahima wax na ca wax yu wér lay yu leer joxoñ ca yoon wu jub woo xamante ni képp kuy boroom xel danga ca ànd ak moom. loolu taxoon na ñoom ci seen bopp wedam nanu ndax Ibrahima bi ñu ko laajee ne ko ndax yow yaa def mbir mi waaw ndax yaa def mbir mi mu ne laaj leen ko xërëm bu mag bi ndax moom ki doon def mbir mi war na ko fekke comme ñépp la nu gaañ ba mu des moom benn moom ci boppam moo ko def yàlla yi walla moom ci boppam fekke na ki ko doon def xam na ko laaj leen ko ah gaaña nag daa xoolante ci seen biir loolu nag tabaarakallaahu xam naa am na ci ñoo xamante ni sax xam nañu ni Ibrahima convaincre na leen waaye nag nit su demee ba lu bon sax ci xolam doonte gis na dëgg sax day préféré jàpp ci lu bon loolu waaw nitu ceddo dana ko def dana dem ba xam ne ak doo baaxul waaye nag du ci mën a génn yàlla dogal ba ñu xoolante ñu wax Ibrahima ne ko xam nga ni suñu yàlla yi duñu wax Ibrahima ne leen waaw naka ngeen di jàmmoo loo xam ne du dégg du wax du yëg amul bët yum leen mën a gise foofu nag lañu xamee ni Ibrahima ah convaincre na leen ñu ne ñu ñoom ci seen bopp ñu wax ni kom antum zalimuna yéen kët yéen a tooñ gone gi gone gi defu leen dara moo tax suñu maam Ibrahim yàlla daf ko joxoon xikma te dañu wax ne wa man yu'tal xikma faqad utiya xayran kathira képp koo xamante ni yàlla jox na ko xamxamu xamu xikma jox nañ ko yiw bu rëy yiw bu bari kon ci xikma boobu la leen Ibrahima yaye moo tax alquran nettali ko ne Ibrahima daf leen wax ne afa tacbuduuna min duuni illahi maa laa yanfacukum cheyan wala yadurukum uffin lakum wa lima tacbuduuna min duuni illah afala tacqiluun ndax da ngeen di jaamu walis yàlla lu leen mënta jariñ te du leen mën a fin la ko waaye puus leen fële yéen a gàtt xel te ñàkk solo lu tax ngeen di jaamu keneen bàyyi yàlla xanaa amu leen xel moo tax mu ne ba nga xamante ni sonn neen ci ay pexe amuñu logique bu ñu mën a jàkkaarloog Ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nag ci seenug mbon ak seen doole pour gaañ Ibrahim moo tax ñu gënoon a bon ca ñoom doon leen wax ne xarriquuhu wansuru alihatakum in kuntum faa'iliin ñuy wax naan gone gi dafa sob gone gi dafa yaradiku su ngeen bëggee mucc ci moom lakk leen ko su ngeen ko lakkee ba mu dee da ngeen dimbali seen yàlla yi ndéem nam may ngeen a nam ma ngeen a jëfandikoo suñuy xalaat ñu bon ña ca ñoom ñoo ko doon wax